xoolal gaa yaa ngi abonné yomb na YouTube la ñuy laay fe ma heure ci kanam nii TikTok baa ngi nii Flash baa ngi nii YouTube gis ngeen ko YouTube da bës taj mu yóbbu la nga jeex na mi ngi nii xoolal TikTok baa ngi nii TikTok baa ngi nii Flash baa ngi nii gis ngeen ko Flash baa ngi nii YouTube gis ngeen dangay bës gis nga ko laal taj mu yóbbu la nga abonné daw leen yéen ñëpp laal YouTube bi waaw 27300 et gars yi kontaan naa ci yi kontaan naa ci yéen a ngeen yi abonné de bu tey ma kat ndey yi data eh, katal sa ndey fay eh yi bëgg naa ci yéen kontaan naa ci yéen de bu leen ma tax a simeeku waay bu leen tax tey ma kat ndey data yi waay bu leen ma taxa a simeeku waay kontaan naa ci yéen de gars yaa ngi abonné de abonné leen yéen ñëpp. trente mille kaa laa war a am tey pour commencer katt ndeyu dëkk bi trente mille cas bu gaaw bu leen tax ma katt ndeyu lëf yi waay gars yi bëgg naa ci yéen de non bu leen tax ma simeeku waay bu leen tax ma simeeku bu leen tax ma dugal lëf YouTube xam nga man dama bu ma rakkaajoo kenn du ma téye bu leen tax ma dugal lëfu boy yi YouTube bu leen tax ma dugal data boy yi YouTube bu leen ma tàgguloo waay bu leen ma simeekuloo gaa yaa ngi abonné de siisu bu abonné wul nag sa dëjaw nday siisu man buy siisu laaloo fëles bi abonné te bay seetaan sa tuunu nday man boos ko abonné wul gaa yi abonné ndax am na ñu ma bëgg ni ma suivre waaw dama leen di woo téléphone lijjanti kaa yi maa res Sénégal du ma sama ñetti compte lan kii YouTube laay dem daqaar ndayam tey ci guddi toj la fal ndayi TikTok bi ba ni compte yi di ñëwaatee du ma bàyyi non non ku laalul fëles bi nag sa tuunu nday tey siisu. leer laa leen di wax yobb na tiktok baa ngi nii feles bi ngay laal abonné xoolal 27400 ay gars yi doo leen dinde xaaral ma waay bu leen ma booy gars yi bu leen ma simeekuloo waay yokk ngeen xoolal yokk ngeen 500 abonné ay eh, bu leen ma simeekuloo de bu leen tax ma katt nday dëkk bi de nan dem 30 000 ka tey 30 laa bëgg am na gaaw yéen ñëpp génn leen ngeen laal fles bi dugg YouTube abonné sama yaram dafa tàng tey moom yàlla xoolal yàlla bu ma kenn woo nag di ma ñaan intervention ndax xam naa ci laay tojjee sa lëfal ndey nii ma toll nii nii moom kilifa bu ma woowoon sax lu ma koy rus rus rus rus dinaa jaar fu ñaaw ndax dèjà damaa mer sama ay ñetti compte yu am doole dem nan Capo Europe 3 dem na Capo Europe dem na Capo Mos Adam yëpp doxaan na ndayam bu ngeen seet see du ngeen ci gis benn te man maa ëpp doole Instagram doole bi ma yore Instagram kenn yorewu ko maa ëpp ndayi doole ci Instagram bi Instagram bi maa ci ëpp ndayi doole kattal sa nday tubaab bii di ma demandé xamoo li may wax nga bëgg a génn léegi mu àgg un million ah Instagram kon ba may doog a commencé lii gëj maa dal ay ñetti compte nga ñàkkandoo ko benn yoon maanaam dan la signalé dan ma signalé mais du piraat moom léegi tur yi mën nañoo nuroo laaj nañ maa ay affaire daal envoyé naa ko maa ngi xaar suba 24 heures na mat suñ ñëwaatee xayran bu ñëwaatewul ñu changé système tey tantôt ñu ngi YouTube tey ñu ngi YouTube ah suba ñu changé système Instagram am na Adama Eva garaawul gars yi non non defuma dara billahi wallahi tey laa gën a mën a taxaw tey laa gën a mën a kat nday àdduna bi damaa découragé woon na dama ne woon damay bàyyi maanaam damay arrêté toog mais déedéet sama noon yi dañuy am lu leen di neex faaw may def bër non may fete seen lëfal nday bu wér pareegu ma léegi de damaa découragé woon mais bu ma xoolee ci yéen rek damay kat nday su meeku ñëwaat katt ndegi réew mi damaa découragé woon de mais bu ma xoolee ci yéen rek damay bëgg lekk ndeyi sa gara sa lekk ndeyi àdduna bi tey la wàllu gën a ay damaa découragé woon billaahi damaa découragé woon mais ba ma xoolee ci yéen rek ma ne déedéet day yomb ba mu ëpp day yomb tax a génneel lëf rek ci live bi du ngeen ay nit de waaw gaa yi youtube bi yomb na xoolal tiktok baa ngi nii felees baa ngi nii gis ngeen ko youtube xoolal yomb na amul lien mi ngi nii def nañ ko fa ba pare mi ngi nii da ngay laal flash bii rek youtube taj mu yóbbu la nga abonné daw leen lii kay yomb na xoolal kattal nday fii kattal nday arrière gis nga ko tuunu nday youtube baa ngi nii gis ngeen flash bi laalal lëfal ndayam rang katt ndayam abonné man na amul leneen marche arrière à gauche marche arrière à droite TikTok kat ndeyi fi kat ndeyam abonné mu jeex 27500 gars yi am ngeen presque 1000 abonné mi presque 1000 yokku na ci léegi léegi nii doo leen ay nit ay man gars yi danaan du ma nit dëmm laa mais yéen yéenay ndooxóori yéen yéenay ndooxóori ah may du ngeen ay nit yomb na gars xool leen arrière arrière youtube baa ngi nii gis ngeen youtube baa ngi nii xoolal lii mooy sama maa ngi nii di live youtube baa ngi nii ci bio bi gis ngeen ko fii ngay katt ndayam laal taj abonné xoolal vingt sept mille six cent ah waay gars yi doo nit de kattal sa nday noppi nii ngeen di def moo duggee ci tere